mooy ki jamonoom teg Serigne Saliou. te it Serigne Saliou daaw jug fi maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. am na ci yoon woo xam ne sax. Mhm. nee na ci palanteer ba la jaaree. mooy palanteer ba Cheikh Ibrahima daa ubbi di jàkko ko Serigne Mourou Fall benn. Mhm. nee na booba tuut tànk la. nee na ma jóge ci daara ji ma doon jànge dem. ba ma séenee. xam mi ma dafa wax ñu jëli ma ma jaare ci biir kër gi. mais njowaan gi ma teg samay tànk mu talal suuf. nee na may xalaat sama xel ña ka may jàngal. ndax su yégee ne génn naa. te bi may génn nee na damaa jékki-jékki rek waxuma dara dem mm. nee na bi may xalaat sama xel Cheikh Ibra Fall tontu ma ci laa ma ñoom xanaa da ngay bañ ku la gunge nee ma ne ko waaw mu ne ma bu la mag ñu gunge fere yu gunge la mais bi may dem sëñ Saliou nee na sans poche yi Cheikh Ibra da koo duy addi ba mu fees dell boole maag nag mi ponkal ku ne yanu dara ay addi ñuy sekkar topp ma mhm. te bañ ñu yëg la xoolal koo xam ne ngay génn da ngay bañ ko la yëg <laughs> waaye nee na bi may egsee sëñ Saliou nee na ka jàngal mhm. waxuma dara ndax indil naa ko koom moo xam rek ba dee mën na ci dund moom mhm. noonu la meloon nag maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi dina moo tax sëñ Saliou boo xëy boo xoolee moo Cheikh ñoo bokk defaree xoolal ñi sëñ Saliou yàq xool ñi sëñ Saliou yar ci loxol boppam mm. ñoo koo ci gis nag mm. ab Baye Fall la xoolal góor a ji ñi ngi koy siyaar bu baax a baax ndeysaan soxnaam moo ma ne mm-hmm. góor de sooy waxtaan ak Cheikh Ibra day tàggu sagam day jooy rek mm-hmm. góor a jëy góor a jëy safoor ba mm. ma dem bi seeti ko mu ne ma ah. lii ma lay ko dund ak sëñ Saliou mu mm-hmm. naa mu ne ah, mujj yi bokk naa ci ñu daan wàcce karawam ñu ko daa wat mu ne ma gis nga at mu mujj bi ni karaw gi mel na saala ji defe naa wane woon nañ photo bi léegi karaw gi ni mel def baram def def njañ mu naa ah, mu ne ma danaa la wax la ca xew góoraa ma wax nee daa am bis ku tedd ki sëñ Saliou ci mu jëm na ma góor a kaay wat ma. nee ma dem jël rasuwaal wa waajal ba tiim karaw ba tooyal ba tiim di war a wàcc karaw bi. mu a ma xanaa góor a karaw gi xaw naa Salim. nee ma ne ko Mbacke waaw fi ne nii nag moom da nee ma bëgg lu ko neex ne ko nag Mbacke fi ne da ngaa bàyyi faale nag. moom karaw gi moom daa bàyyi faale mu ne ma sàllaaw kon watee fi nañ ko bàyyi ba déwén ma barke sama bay Cheikh Ibra. ndeysaan ak moom sëñ Saliou watuwul. a nee na ma sa watee fa ma ko wat lii ma lay wax. ci exemple rek xanaa xanaa Cheikh Béthio war naa doy exemple. ci Cheikh waaw xam nga. te dégg naa ci làmb ju Cheikh Béthio mu ne. Mhm. Serigne Saliou moo leen ne. Mhm. fu ngeen doxee ba fekk ñuy waxtaane Cheikh Ibra Fall ne mel ci yéen Serigne Touba la ñuy waxtaane. Mhm. kon Serigne Saliou wooy Cheikh Ibra moo tax sëñ Manoumbe ak Cheikh Ibra Fall ñoom miin Serigne Saliou. xam nañ ne Serigne Saliou mënu woon a muñ ñaari ñaari jëmm yooyu. déedéet boo ko tuddee ci kanamam. nga gis ro xéewal yi sotti ko. sëñ Manoumbe ak Cheikh Ibra Fall lii ngay nettali léegi Eh, ca ca ca ca ca kaamil boobu ca mbind moom mu doon sottiloo eh, sëñ Moussa Alima sëñ Moussa Alima mhm. sëñ mu Moustapha Mbar moo ne mhm. moom sëñ mu Raminta Fall mhm.